émission parce que c'était dur pour nga jàll benn télévision bu amoon mooy RTS benn émission divertissement mooy génération 80 midi première ak le petit théâtre dimanche à 13 donc moom c'est-à-dire euh, naan euh, capital immatériel mooy koo xam ne da nga de rien pour mën a egg fenn moom day gis loolu ci man kon moom amoon na vision boobu ci man motivé ma moom njëkk a yóbbu spectacle pour ma jouer te moom comédien la xam nga mais am na day boo xam ne pour la vision du futur maanaam mun na xool nit xam ne kii euh, capital immatériel la maanaam nit koo xam ne mun na déparé de zéro amal boppam créer boppam promotion créer boppam créer boppam daal maanaam ko boppam liggéey dañu basé wu ci jàppale moom wala dimbali moom wala dara yaa ko donc moom lii tey ba taxaw de man dama gis euh, nit ki bu fekkee da nga koy gis clair ci mom ne ki salam non ci mom mun na émerger ëllëg ba mun a créer emploi war a demal boppam ak ses propres élèves c'est parce que lu ubbi rek bu amee condition ay gën ko rek ñi nga xam ne la koy wax bu mu gën dañu dañam lañ si xaw comprendre ngeen li ma wax ndax il faut prendre les escaliers pas l'ascenseur parce que escaliers yi ñoo mun tax ngay xam lan moo nekk ci yoon bi mais boo jëlee ascenseur dem dix-huitième étage boo bëggee directement doo gis ay projet dañuy ñëw rek mais bu mekkee gis ay nen ay banaana ay xole xolliti gerte ay rey wàcc tu vois donc dans la vie il faut prendre les escaliers de pas à pas pour mun a egg fi nga jëm te boo xasee ba egg au sommet dara dootu la daanal parce que da nga galérer mooy vision bi nga xam ne moom la lépp di forger pour am xamal sa bopp mënal sa bopp pour ëllëg mais bu ñu la defalee yëpp rek day ma maanaam mooy ascenseur bu ñu la defalee yëpp utal la liggéey forger la foo xam ne teg la foo xam ne mënoo ko xam nga après yow da nga fay nekk sax mais malgré ne yow lii du liggéey mais boo jàngee dara kon nii di ko forger créer ko amal ko sa bopp ba am conseil ba xam ko ëllëg képp la ko mën a mais

alors il est devenu un leader d'opinion. Des gens comme ça, il y a le premier intelligence, c'est l'intelligence intuitive qui vient de Dieu, l'intelligence intuitive. Nous sentir, nous sentir Je tenais à ce qu'il soit là pour vous encourager parce que il faut, la jeunesse, il faut nous changer cette façon de ah, voir. Ah. Et maintenant, des coachs comme lui, parce que c'est c'est des coachs, des coachs comme lui, nous à avenir. Parce que les professeur de mathématiques, non, non c'est pas ça. parce que léegi ku bëgg a am xam-xam mën na ko am ci internet. mais kan nag kan moo lay galvaniser ba nga gëm sa bopp.